association bi nga xam ne ni ñiy defar fëriñ ñoo ko bokk dem nan beddeeku dem ci presse bi di wax ak ñoom daldi ne li ñu décidé d'accorduñ ci la ca gën a nag yéeme mooy ne danañ wàññi ñoom li ñuy jaay ci fëriñ pour ne pas dire danañ dem ba arrêté li ñuy jaay ci fëriñ te ñépp xam nañ ne loolu aw tëkku la tëkku nañ gouvernement bi tëkku nañ tam bi mooy ñun danañ fexe ba du ngeen am fëriñ te kenn du lakk mburu gouvernement bi nag lu mel noonu day loo xam ne ne ñaawlu na ko fa ñaawlu yem ba pare tëm day loo xam ne ne jàpp na ne aw tëkkuwun ko tëkku la ndax lu mu waxtaanee ci biir néeg wax ceeg ñam ca war a wax ak ñépp dem awale ko fi ko war a awale dem ba desul lu dul ne nan ca dem au lieu ñu jaaraat fan jaaroon danoo génn dem wax loo xam ne ni àndug worma la ca nekk itam bari na ci loo xam ne ni wuute nag la xew ba pare itam bëgg ñëw ne askan wi ñun day kontaanun te buñ kontaanun li ñuy def dañuy bànq suñuy loxo duñu defarati fëriñ duñ ko jaayati kenn te loolu xam nañ ne mënul ne te gouvernement bi du ko seetaan li ci tegu dañuy ne ñoom dañuy perte waaye ku xool seen bilan bu nu wàccee at mi Si vous deux mille nga xolé bénéfice at mi def na milliards ak ñeent deux mille milliards la am bénéfice que 2 a lay am na bénéfice su milliards ku am bénéfice su fukki milliards ak ñent ñu ne la ci ne perte wax nan askan wi nan ko saytu seet fan la dëgg féete bi waxee loolu ba pare nag gouvernement bi nee na daf leen di mettre en demeure mooy dafa ne leen lii ngeen ne da ngeen koy def na dakk na dakk ngeen dem fariñ ba ngeen doon jaay seen usines yi ngeen ubbiwaat ko te ngeen def ko ci prix yii gouvernement bi décidé nanu dakkal li ni jéem a xuppaate dem ubbi seeni usine defar fëriñ nan ko daan defare jaaye ko njëg yi gouvernement bi fixé bu nu ko deful am réew lan tëkku gouvernement lan tëkku te gouvernement bi du seetaan mukk ñuy dem bay xajamal liggéeyu lan mooy dem ba ku bëgg am mburu doo am mburu gouvernement bi loolu xel xalaatu ko